liñ si jublu mooy euh, brassage bi am entre les enfants qu'on qu'on qualifie de normaux ak xale yi nga xam ne dañoo am woy laago ñu dajale leen comme ça xale yi jëflante seeni biir mën a xamante ku nekk xam say jafe-jafe morom ndax euh, club communal bi fi teew tey mooy représenté wu toute la toute la zone de Pikine donc ay xale yu fa nekk. si club d' enfants yi différents sites yu ñuy intervenir maanaam ginnaaw raay sud ginnaaw raay nord Pikine est ñooñu ñoo nekk si biir club communal bi. donc club communal boobu moo ñëw tey jokkoo ak centre suñu doom liggéey ak ñoom nga xam ne jafe-jafe yu xale yi handicapé yi am ñoom après dinañ ko mën a porter cadre d' expression yi maanaam. comité départemental protection de l' enfant ak comité communal protection de l' enfant. centre suñu doom amuñu fu ñu nekk. donc xale yi ngeen gis nga xamante ne ay euh, bénévole ñoo leen di jël en charge xale yi actuellement amuñu fu ñu defee seen activité ils sont remis à leurs parents nga xamante ne si ay jafe-jafe lañ leen di yore ku si am xale boo xamante ne dafa am handicap bu xaw a lourd da ngay obligé arrêter say activité téye sa doom sa kër.